ci bopp xibaar yi suñu gan yegsi na Serigne Mbuub la di PCA bu saar société africaine de raffinage nar a waxtaanee eh, bile gaz naturel ñu gis ca bët gànnaaru eh, réew mi sëñ bi Mbuub maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar soxna si. 17 milliards 17 mille milliards eh, de gaz moom la ñu gis ca bët gànnaaru Sénégal boori Ndar naka ngeen ko jàngatee. alors d'abord euh, jàngat mu bu neex parce que bu nouvelle bu baax la comme ni ko waxee. Euh, muy lu rëy ci Sénégal euh, nekk nag euh, fekk si li nga xam ne gisoon nañ ko déjà ci pétrole ci booru Sangomar ñun ñu nekkoon ci secteur bi di liggéey xam nañ ne Sénégal potentiel am ci géej gi surtout lu leer la mais bala ma def dara il faut ma ndokkeel waa Petrosen parce que quand même lañ ko créé woon ñi fa nekk nii donc ëpp na fanweeri at ak lu topp. ñuy liggéey guddi ak bëccëg ci conditions yi difficile di wër àddina bi fu nekk ñu dem fa jëli compagnie yi ñëw parce que Sénégal amoon nañu potentiel bi rek wante amuñu woon loo xam ne daanaka mun na tax nit ñi sawar fi ñëw euh, donc loolu moom euh, la ñuy def dem wëri ñëw indi nit ñi kon découverte la boo xam ni am na solo confirmer na li ñu yaakaaroon te am nañu yaakaar ni beneen découverte rek la wante am na potentiel boo xam ne yeneen ak yeneen war na ci topp te loolu njëriñ li mooy dina ubbi perspective maanaam yaakaar ju bees ci réew yaakaar sax am na ba noppi ci askan wi ndax ñoom ñu ngi xaar lu rëy ci bile gaz naturel ñu découvrir ñi sax ñu ngi njort euh, ñu ngi commencé wax ne euh, bu loolu sottee njëgu courant bi ak li ni mel yépp war naa wàññeeku ci Sénégal alors incontestablement gaz bi nag day dépendre ci ban qualité la parce que Euh, am na gaz yoo xam ne nii il faut nga liquéfier ko il foo nga stocké ko il faut nga def leen am na gaz boo xam ne bu dee noonu la bindoo euh, électricité rek la mun a defar et cetera et cetera compliqué na euh, possibilité yi mu am loolu xëy na recherche yu ñuy defaat bu gën a xam nature gaz bi dinañ ko xam mais li wóor moo di dina indi yokkute bu wóor ci réew mi parce que bu dee dañ ci defar électricité li nga xam ni moom gaz bu mën di nekk comme noonu ma la wax ci yooyu muy sec bu ñuy brûler wala lu ñuy liggéey liquéfier ba pare def ko technologie pour defar ci courant dina am kon mën nañu yaakaar ni ak politique bi Sénégal jël déjà parce que signé nañu ak Mauritanie déjà seen partenaire benn partenariat pour jëli euh, courant ci gaz bi am foofu kon euh, ñi ngi defar tuuti aussi courant ci gaz ci Sénégal parce que fii ci Diamniadio am na lu ñu fay kii bariwul mais comme xam nañ technologie donc gaz moom dana jëriñ courant Sénégal li tubaab di wax indépendance énergétique war yaakaar nañ ne ak découverte bi war na ko mën a am dolli ci nag koppar yu bëri yoo xam ne Ah, dina ko mën a dugal ci gafaka réew mi comme ça politique sociale yi gouvernement bi tëral politique d'infrastructure bi mu tëral ak sax fonds six bi nga xam ne dañ ko créer pour am li ñuy wax fonds souverain maanaam pour gën a dëgëral suñu économie mais denc ëllëg pour xale yi ñëw ah, loolu mooy perspective yi nga xam ne ah, moom la découverte bi indi. yokkute googu ci askan wi ci seen dundu ak li ni mel bu ñu ko doon xayma fi lekk ñaari at lay mën a doon. non li ñu xalaat parce que nag dafa am euh, Sénégal xam nga découverte yu mag mu ngi door am muy gaz muy pétrole euh, infrastructure yi def production yi amagu fi te xam nga bala nga koy produit surtout que ci géej gi la parce que pétrole bi rek déjà cent kilomètres lii aussi noonu la demee donc il faut ñu def investissement yu mag yoo xam ni ci ay milliards de dollars lañ koy lañ koy xayma. Mm-hmm. benn milliard de rek ëpp na six cent milliards CFA fi mu toll. donc investissement yooyu foo ñu def ko projet bu toll noonu aussi il faut nga am 4 ba 5 ans pour créer infrastructure de production yi ak pendant ce temps ñuy def ay yeneen forage pour délimiter dëgg-dëgg euh, kii bi fu mu toll Euh, xayma ko ba gën a xam aussi bis bu ne ñaata lañ ci mën a xëcc. ak ñaata at la donc loolu dañuy yóbbu ci deux mille vingt et un deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille mmh. mais loolu soriwul boo xoolee ci programme PSE déjà mu ngi yóbbu ci ñaar fukki at. Mmh. Ah loolu aussi wane na ne gis-gis bu amoon xel la bu lal woon ci lu ñu yaakaar la ak loo xam ni lu plausible ak réaliste gannaaw. li ñu mën a jëlee ci bitim réew pour financer mhm, gis nañu itam ne mbir yi bu sottee euh, Cosmos énergie bi nga xamante ne moom moo ko découvrir dina ci am 60 pour cent dégg nañ ko euh, ci récit bi Petrosen 10 euh, pour cent la ci am ndax Timis Corporation moom mooy am 30 pour cent ndax 10 pour cent ci Petrosen tuutiwul. non tuutiwul d' abord il faut ma ma leeral contrat yi nan la demee. Euh, d' abord li ma la wax nii ñuy def yëpp dépense boobu ba léegi Petrosen defu ci dal dara de am 10 pour cent porté la bu euh, xam nga nguur gi moom moom suuf si maanaam moom moom géej gi ci ci li Sénégal moom moom moom suuf si dafa créer Petrosen teg ko ba compagnie bu ñëw bëgg a def recherche nguur gi dalay jox yow ak Petrosen association ngeen ànd bokk mbir mi donc Petrosen ñoo ñoo ko bokk léegi nag. li ci nguur gi wax mooy personne da ka fay nekkal nekk société bu waree def investissement ëllëg mu mun ko def mais euh, liggéey boobu dafa doy waar ba dañu bëgg société yoo xam ne dañu am capacité di réagir comme secteur privé loolu moo tax Petersen dugg Petersen am na 10 pour cent yoo xam ne du fay dara su fekkee am nañ découverte comme nii mën na ko yokk ba vingt pour cent su boobaa day continuer mais li ma la mën a wax mooy nguur gi ak Petersen parce que Petersen 100 pour cent gi moo ko moom. contrat yi ñu signé yëpp muy bee ak bii buñ ko xaymaa. Mhm. li ci nguur gi am boole lu mu am moom li seen am ak impôts yi parce que société yooyu seen 30 pour cent 60 pour cent ci des yi ku ci ne di nga fay 30 pour cent impôt sur les sociétés soo ko xoolee état Sénégal ci boppam mun la am lu yées. Euh, lu ëpp condition bu ne ëpp na 50 pour cent mais yi ci ëpp sax mu ngi entre 60 et 60. mën nañ njort ci kanam boog mu yokk parce que léegi ñin ñaa ngi naan ab séddale bukki ndax du am ci mbir mi. non séddale bukki mënu ci am te loolu dañuy dañuy saluer sa démocratie Sénégal dañuy saluer clarté code pétrolier bi dañuy saluer règle de gouvernance yi nga xam ni moo am ci réew mi ak saytu gi nga xam ne nii danañ ko saytu yëfu mbir yëfu yëfu nguur gi et donc euh, loolu moo tax ma xam ne. ak contrat yi nu mu leere ak compétence yi nga xam ne am na fi ba pare je pense que amul benn souci bu nit ñi di def te pétrole bi géej la buñ koy exploité. Mhm. du gêner nit ñi may fàttali ni Sénégal bokk na ci Afrique de l'Ouest réew yi raar yi am code de l'environnement parce que loolu aussi xam nga day am impact donc mën nañ yaakaar ni lépp incha allah dina jaar ci yoon te comme ni ma la wax Sénégal moo ëpple fuuf ci mbir mi et donc euh, li ñu war a am. compagnie dañ leen di fay li ñu war am parce que ñooy investir et mhm, wax nga ko sànq euh, ñu ngi doon wax pétrole léegi gaz naturel la ñuy wax am na ay réew yoo xamante ni ñoom ñu ñoom ñoo ñu wër ñoom it am nañ ko teewul ba tey ñu ngi dundu ci ay jafe-jafe fu ci mel ne Mauritanie ak feneen. waaw d'abord structure réew yi bokkul. ndax yaakaar bi judd tey euh, du du. no du du fay parce que wax naa la Sénégal état de droit la Sénégal am na démocratie stable Sénégal am na organe de contrôle yu baax maa ngi saluer sax mesure bi bokk ci réforme constitutionnelle bi jox pouvoir yokk assemblée nationale pour non seulement ñu contrôler mais évaluer politique publique dinañ gën a mën a xam li nga xam ne mu ngi xew mais euh, et niveau réserve yi ñu am parce que découverte bi moo gën a rëy ci gaz fii. ci li ñuy wax west euh, africain mhm. donc jóge Angola ba àgg Maroc dolli ci boo xoolee réew mu mel ni Qatar dooleem yëpp ci gaz la mhm. ak possibilité yi ma la wax moo tax ma xam ne du yaakaar buy nax saay du yaakaar bu nax saay kon ñun ñi mën nañoo euh, kii mais gis nañ ne am na ay syndicalistes yoo xamante ne jot nañoo yëglu ba pare ne mbir yi bu ñu ko jox ay multinational rek euh, nañu ñu xool itam société yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii euh, ci réew mi loolu naka nga ko gis. non loolu moom exploration multinationale ñoo koy def partout Arabie Saoudite fu nekk ñoom créé nañu société bu mel ni Petersen Petersen amagul woon doole mais découverte yi dina tax Petersen ami doole. ba bu ëllëgee fu ñuy wax investissement plusieurs milliards ak centaine de millions yi ñu def parce que ay millions millions centaine de centaine de millions la ñu def boobu ba léegi suñu gisuloon dañuy perte parce que bis bu ne am société yu ko def perte dem seen yoon donc euh, mais li nga xam ni moo wóor moo di dina yokk emploi impact bu bëri ci nit ñi dina yokk aussi euh, capacité parce que dinañ jéem a former encore am nañu ingénieur géologue géophysicien yu doy parce que IST mi ngi koy def institut sénégalais des institut des sciences de la terre bi nekk université mais yeneen métiers yi nga xam ne mi ngi ci danañ ko yokk et puis danañ fexe aussi ba société yi nga xam ne ay prestataires de services la ñu te am yenn capacité yi ñu liggéey ci loolu defe naa moom euh, moo am ci déjà li ñu fi jot a def boo demee Diamniadio dem faneen ay sénégalais rek fay liggéey benn tubaab moo fa nekk te boobu depuis 2002 ñu ngi produire gaz loolu mooy am fii mais am na yoo xam ni société privée yi ñoo ko attan et donc moo am ci réew yi àddina yëpp et c'est les mêmes sociétés qui seront là waaye loi ak règlement yi leer na leer goo xam ne Sénégal dinañ ci gis seen bopp bu baax. kon am nañu pétrole am nañu gaz mën nañu jàpp ne yokkute dëgg dina am ni ko euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllu énergie waxee nos rêves vont se réaliser. Ah je pense que objectivement rêve bi moom yaakaar parce que réew yaakaar rek lay dox xale yi mag ñi war nañ xam ne Sénégal a ngi am perspective yu ñu mësul am pour que ñu yaakaar ni vraiment njariñ li dana ñëw. wax naa la d' abord li ñu mën a financer ci projet. Mm. mais wax naa la fonds 6 bi am parce que les fonds souverains loolu lay jëriñ yore capacité yore doole di xalaat yoo xam ne soxlawuñu xaalis boobu pour léegi mais dañuy xalaat pour fukki at ñaar fukki at fanweeri at juróom fukki at ñiy ñëw lan lañ leen di liggéeyal bàyyi leen ko fi ba su boobaa ñu mën a continuer. Sénégal ndax dina mel ni Dubaï boobu. dina amuy capacité avancé de bo réew yi bokkuñu ndax Dubaï amul pétrole. Mm-hmm. Dubaï ko ci. service ay service financiers service commerciaux ak leneen. mais en tout cas dina am capacité fexe ba lépp ba ñu nekkati Dakar rek ni ko defee autoroute yi génn di pôle économique yi ñu bëgg a tabax lycée yi université yi emploi yi Sénégal dina am gën a am capacité pour aussi séddale richesse bi pour que inéquité ak fracture sociale bi am ci diggante ñi am doole ñi amul doole maanaam ndool gi gën a wàññeeku ndool gi. gën a mat nit ñi loolu moom awma ci benn doute parce que li ñu yaakaar su amee te gis nañ ni scientifiquement c'est possible économiquement c'est viable tous les rêves sont permis tous les rêves sont permis ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Serigne Mboup di PCA bu SAR société africaine de raffinage ñu doon waxtaanee gaz naturel bi nga xamante ne gis nañ ko ca bët gànnaaru euh, Sénégal ni mu ko waxee yaakaar juddu na ci askan wi waxoon naa ko ci.